koo Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma ma nit ma def bokk ci campagne bi maa ngi leen di invité yéen itam yéen waa Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare ah, lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid 19. pour loolu nag nañu mën a raxasee loxo yi te mu nekk raxas bu bu bu yenn maanaam bu am solo mooy ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sottil ñu ndox si suñu loxo su fekkee keneen moo yor bërëb muy sotte ndox lu mel ni satala wala butéel ñu tooyal loxo yi ginnaaw buñ ko tooyalee ñu jël saabu wala moo xam saabu përngël bi wala boog savon liquide sotti ko ci biir loxo yi su ko defee buñ ko sottee ci diggu loxo bi ñu jël ñaari loxo yi daldi ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci wey we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi

ñu doog nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette walla lu ñu am loo xam ne lu set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robinet bi bu ñu paree nag doo ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàq na ndox mi aussi su ko defee

asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan ñu gërëmaat leen bu baax a baax sargalaat leen amaan mbégte toogaat présenté waat leen seen émission takkusaan ñu koy defee rek ayuba si nekk altine lay doon ba alxamis jàpp 16h 17h ñu gërëmaat bu bi subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne moo ñu mayaat kattan ak tal ak fekke ba ñu fekkee waat li nga xamante ne mooy talaata yi tey ji balaa ñuy nag présenté invité dañuy daal di dem régie jëli ci situation du jour bi dellu si ci plateau bi asalaamaaleykum mbokk Sénégal tey bésu talaata fukki fan ak ñaar ci weeru janvier deux mille vingt et un bu ñu dënk wérgu yaram askan wi jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom benn fukk ak ñaar test yu ñu def téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom fukk lañu am yi naan ka contact mooy ñu jotoon di jaxasoo ak ñi amoon doomu jàngoro gi amul benn cas importé maanaam benn cas jotuñu ko bu jógee ci bitim réew téeméer ak ñaar dañu jot a am comme transmission communautaire maanaam ñu jot jàngoro gi te xamuñu fuñ ko jëlee ci loolu lim bi nii la tëddee fukk juróom lañu jot a nemmeeku ci diwaanu Kaolack juróom-ñett ci Mariste juróom-benn ca Dakar Plateau Richard Toll ak Ndar ñeent ca mbuur Mermoz ak tuuba ñett ca Dagana Guinguinéo ak tàmba ñaar ca Diourbel Kaffrine Liberté 4 Matam Mbao Ngor Parcelles Assainies Sangalkam ak Yoff benn ci Amitié 3 cité Cheikh Amar cité Djily Mbaye Daara Diamniadio Diofior Goudiri Guédiawaye Joal Kanel Liberté 3 Liberté 6 Linguère Mamel Médina Ndofane ñaari tali Wakam Sacré-Cœur 3 Sakal Scat Urbam ak Sokone téeméer ak ñeent fukk ak juróomi malade ci ñu ñi ñu hospitalisé wér nañu bésu tey fanweer ak ñaar malade ñoo ngi réanimation fukk ak malade ñàkk nañ seen bakkan ba si démb altine fukki fan ak benn ci weeru janvier deux mille vingt et ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak benn ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomu cas positif ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak juróom téeméer ak ñaar wér nañu ci ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ñàkk ci seen seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar si suñu hôpital. macha allah ñu gërëm uh, waa régie bu baax a baax sargal leen am mbégte ci liggéey bu rafet bi gis ngeen macha allah situation du jour bi. li nga xamante ne noonu la tëddee ni ma koy waxee rek saa su ne yenn saa nag du ma ci commenté mais invité yi dinañ ci daal di wax li nga xamante ne moom moo ci daal di nekk euh, Badiane ñu am mbégte dara laat la ci li nga xamante ne moom mooy suñu plateau ñu koy wax Badiane Séni Bari mu nekk animatrice fële ca Kolda euh, ci euh, rajo communautaire maa ngi lay nuyu bu baax a baax Badiane am mbégte dara laat la ci suñu plateau mu bàyyi la nga nuyoog askan wi. merci euh, Awa euh, di la nuyu rek di nuyu soxna su baax si ñu bokkal plateau tey mhm. di nuyu toute l'équipe technique vraiment di leen de gàcce ngaalaama masta mhm. leen coono mhm. mais di nuyu àddina yëpp képp koo xam ne mu ngi ñuy bàyyee xel maa ngi koy nuyu euh, di leen sargalaat bu baax ah di ñaan yàlla suñu borom rek yàlla nañu lay wàcceel jàmm ci réew mi. amiin ñu am mbégte tamit dalal fi tamit sunu beneen naataango ñu koy wax. mbay Bangoura macha allah mu nekk coordinatrice euh, association takku liggéey macha allah ñu lay nuyu Ndeye am mbégte yow tamit dalal la ci suñu plateau ñu ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. macha allah Awa. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mm-hmm. di nuyu Soxna Sini. mais di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. mais di sante tam sama borom keur nga may ma loolu. Mhm. Mamadou Mbaye maa ngi kay sante bu baax. Mhm. ci li baye ba fépp fuma bëgga tew rek ma tew fa. Mhm. Ah, di nuyu wa RTS yëpp mais di nuyu Sénégal ñëpp nak wax alhamdulilah. ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la sargal nuyu invité comme ni ma koy waxee saa su ne sa ñom du mëna dem kon invité ñi ngi leen di sargalat jaajëfalaat leen bu baaxa ba xamna xam bala ne balaa ñuy dugg ci li nga xamantene moy waxtaan bi damay dem de ci jëli élément dellusiwaat ci plateau bi. ndogal bu njiitu réew mi jël te mu dal ci ñaari région yu nu nemmeeku lu ëpp ci kaawu covid 19 moo ne day law gu gaaw bu feebar bi terewul ay jàmmarloo diggante xale yi ak takk der yi ay nit yu feebar bi lottal ak sax ñu mu faat dafay tegtale ni nit ñi gëmu ni ni wopp jaa ngi fii wala ñu yaakaar ni tëj bu njëkk ba nu tëjoon réew mi jëlee na ko fii loolu nag erreur la Sénégal mu ngi dund ñaareelu vague Covid 19 ba tax nguur gi dootu mën a bàyyi lu waay neex def farata. ci nit ñi jëfe dogal yi kilifa yi Sénégal amul doole ju mu dékkoo musiba bi koom gi nërmeelu na ñàkk jëfe ndogal yi di xamadi gu réew gi mënuta nangu ci ñépp la metti ba tax ku nekk war a sàmmanteeg ndigal yi loolu dong moo mën a tax feebar bi dellu ginnaaw walla mu joge fi jàppale nguur gi ci xeex bi wareefu ku nekk ci ñun la mu doon lu am solo ba defe naa dégg nga li nga xamantene mom moy mooy élément bi reportage bob ñu gërëm ko bu baax ba mais defena né Covid bi lañuy ñuy daal euh, ci kanam touti dinañ gëna dugg ci li nga xamantene mom moy euh, thème bi. Mm-hmm. mais gis nga situation du jour bi. Euh, gis nga président li nga xamantene ndogal yi mu ci toftalu ak batay jangoro ji mi ngi nekk di avancer di dem ci réew mi. Mm-hmm. lan nga ñu ciy indi ak lu ci war a merci Awa. xanaa ñu dellu soir rek ci li nga xamante ne yàggul tuuti rek wax nañ ko fi. Mhm. xam nga waxoon naa ko fii ma ne Sénégal gii benn bopp la. Mhm. mu guddi guddi guddi ñun ñëpp fii lañuy ñuy fanaan. Mhm. waaw ñun sëgëm réew yu am doole. ñoo am problème sakantuma ñun. yaakaar naa ko amul mbokk buy liggéey hôpital am nga xarit mbaa nga am dëkkandoo boo xam. du ñàkk koo xam koy liggéey hôpital kon suñu ne mhm. jàngoro jàngi fii si réew mi na ko nit ñi gëm awa nit ñi dañu war a gëm ne feebar baa ngi fii mhm. mais y'a problème mhm. parce que am na ñoo xam ne ba tey gëmuñu ko laa y'a problème parce que boo xoolee deuxième vague bi ni mu ñëwee man dama tiit pour dire vrai dama tiit ndax première vague bi sax da du yëg ndànk par ndànk yoon ni nga xam ne noonu la nit ñi di dee dafa dafa bari mhm. ñëw ak doole waaw ngir yàlla ñun léegi lan lañ ñu nara ñun Sénégal ñoo bokk Sénégal fii bu baaxee ñun ñëpp la baaxal mar dital bu fi musiba amee suñu ay njaboot ñoo nekk ci ci ci Sénégal suñu ay yaay suñu ay papa donc yeneen dëkk yi nga xamante ne ñu ngi respecté li nga xamante ne mooy le mesures barrières ak li nga xamante ne lépp ñu ngi ko digle pourquoi pas ñun mënuñu ko def mais c'est quoi le problème exactement ñun lu tax ñun mënuñu ko def mm-hmm. laa yaa problème ah parce que nit ñaa ngi wax guddi ak bëccëg waaye di nga gis ku mel ni seen mu ne ah wax rek feebar bi amul donc yaa problème awa macha allah ndey loo ci sànni ci li nga xamante ne mooy jàngoro ji dëgg la mm-hmm. soxna awa wax dëgg yàlla comme ni ko siini waxee rek jàngoro bi dafa am te dañ ko war a gëm nag mhm. te ñun waajur yi dafa am par boo xam ne dañ ko ci war a def mhm. wax dëgg yàlla ndax ñun ñoo yor njaboot gi mhm. te ñi ko gëmul ñu ci bëri xale yi la ñi ko gëmul ñu ci bëri xale yi la te ñun ñoo war a waxtaan ak ñoom xamal leen ne feebar bi dafa am ni muy yokkoo jéggi na dayo ah. lu jaral kilifa yi génn président génn mair yi tooguñu ñëpp jóg ñun war nañ ko gëm nañ xam ne ñu ngi ci réew mi ñu moytu respecté lii ñuy sant lii ñu tere ñu bàyyi ko. mais geste barrière foog ñu vraiment loolu mooy dëgg. Mhm. loolu mooy dëgg ndax nag kenn bëggul teew hôpital. am ku ko bëgg kenn buggu ko kenn buggu fa dem ak sa njaboot. Mhm. te feebar bi mi ngi ci dëkk bi nañ ko gëm te respecté liñ ñu sant. Mhm. lii ñu tere ñu bàyyi ko loolu mooy dëgg war nañu mobiliser xale yëpp waxtaan ak ñoom. ñun yaay itam ñu waxtaan suñu biir. suñu biir wax dëgg yàlla. Euh, macha allah mm-hmm. defe naa ne euh, damay daal di delluwaat ji am na extrait boo xamante ne mooy ubbi li nga xamante ne mooy mbirum jigéen ñi. Mm-hmm. parce que tamit Covid bi tamit mais ak jigéen ñi. Mm-hmm. jigéen ñi nga xamante ne macha allah ñu ngi fi mel ni man. bëgg xew lool bëgg mumbaay. bëgg li nga xamante daf leen di jaral ba ñuy nëbbatu sax di xew. lu ko fi jar même bu fi Covid bi nekkul woon sax xew mu takkarnaas bi sax war nañ koo weesu ndax liggéey ci benn fan liggéey ci at yàq ko ci benn fan defe naa ko nekk war nga ko bañ xam nañ situation dëkk bi nu mu tëddee xam nañu li nga xamante ne moo ñu war ak sunu njaboot yi yëpp mais duñu ko def te loolu nag président am na lu nga xamante ne wax na ko ci bi mu ci doon waxaale ma dem résigné waat ci plateau maa ngi woote waat ñi xam ne ñooy élus yi muy maire yi rawatina ñoom ak président de département ñoom itam si seen i gox ku si rawatina ci commune yi ak société civile bi nekk si gox bi presse bi homme de lettres de culture ñëpp ñi nga xam ne ay leader lañu d'opinion ñu dugal seen loxo ci waxtaan ak askan wi ngir ñu aar suñu bopp aar suñu njaboot aar suñu réew ba jàngoro ji ñu mën ko daan. macha allah nee na aar suñu bopp aar suñu njaboot. ba ñu mën a daan jàngoro ji te wax na ci biir discours bi mu doon wax que ni xew yi ñuy xew dafa doon loo xamante ne rassemblement yooyu dañ ko war a bàyyi mm. parce que dafa bokk ci li nga xamante ne euh, moom mooy indi jafe-jafe soo xoolee ne tey jii nii dakaar ne ñun dañ koy def coupe dañ ko dañ ko confirmé moom ak ak Thiès mm-hmm. mais tey nit ñi ñi ngi dem xew dëkk dëkk mm-hmm. jigéen ñi fu mu nekk ni ñi ngi déplacé wu di dem xew mm-hmm. jóge fii dem Kaolack jóge fii dem Tamba jóge fii dem Kolda te xam nañu fi nga xamante ne fi la jàngoro bi toll mais ba tey nit ñi ñi ngi dem ak dikk lan moo ñu dal ñun ba tax mënuñoo toog rek le dañ ciy tag sa sa sa baaram lan moo ñu dal ñun ñun parce que ñaata yoon lañ ko fi wax mhm. ñaata yoon mhm. xew yi mais feebar dafa am comme munoo bàyyi xew mais ajal sa xew mhm. aj ko ñaan yàlla saa bu feebar jeexee bu la wàccee nga bu la neexee nga wàccee sa raison ba zéro yaa moom yaa liggéey sa alal yaa moom sa bopp mais ngir yàlla comme feebar dafa am te nu muy wàllee dafa gaaw te xam nga li ci gën a gaaw mooy mm-hmm. booy moytu loo xamul lu mu doon xamoo xamoo lan la parce que virus bi benn benn benn microbe la boo xam ne loo ko gis xamoo fu mu takk mm-hmm. xamoo lu mu doon man li tax ma ne dama tiit man xam naa parfois damay toog ma tiit sànq rek dama dama damay xuloo ak benn chauffeur chauffeur bi ma indi. maa ngi koy nuyu de passage. mujj gi mi ñuy juboo muy wax ci waxi masque yi naan dañuy sonal nit ñi parce que liy takk masque nangam nangam ma ne ko kon yow gëmoo feebar mu ne ah dañuy wax rek ñu ciy waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan ba mu yàgg mu ne ah xanaa ñu jàpp ci loolu rek man ne ko kon jàppal ci loolu. jàppal ci loolu dina màtte wala du màtte bul dugal sa baaram. dëgg la mu ne kon xaaral ma aj ma ne ko ajal mu aj pour man. c'est un plus donc il faut ñu dolli wax ñu gën a góorgóorlu yaay yi ci kër yi responsabilité yi ci njaboot gi nañ koy jël ay mesures waaye ñun jigéen ñi nañ bàyyi xew yi xew yi waaw xew yi vraiment mariage yi am na xalaatuloo ne que ni loolu boo amee war nañ ci jël ay daan yoo xamante ne war nañ ko ci mën a teg ku ñu fekk ngay xew euh, sanction bi am loo xamante ne dafay daanu sa kaw parce que tamit xam nga tey jii defe naa ne tamit yenn saa yi boo gisee ñu lu baree bari nit ñi di ko def des fois li nga xamante ne mooy sanction yi dañ koy xaw a banaliser tuuti man loolu laa xalaat parce que am na ñoo xamante ne moom am nañu jom am ngor am fulla am fayda bëgguñu kenn ku nga xamante ne moo leen di wàññi mhm. ba nga xamante ne ñoom bu ndogal daanoo rek dañ koy appliquer xam nga awa boo nekkee un bon citoyen citoyen lii tax nga ne man sénégalaise laa mhm. lépp loo xam ne day delloo sa réew ginnaaw dama koy bañ. dama koy bañ lépp loo xamante ne day avancé loo sama dëkk dama ci xaar sama tànk tubéy. Mm. nee naa la à Kolda comme man ci euh, rajo communautaire ñun askan wi lañ ci nekkal. Mm. kon de retour liñ ciy xaar soxlawuñ ko mhm. na askan ji gis seen bopp mhm. donc lépp loo xamante ne day jëmale sa bopp sa réew mi ci ci ci kanam mhm. mais da nga ci war a sa tànk tubéy mais feebar bi nga xamante ne nekk fi rek te deuxième vague bi ni mu ñëwee ak doole man yaakaaroon naa ne tey ñëpp a war a tiit xar seen tànk tubéy xool nu ñuy xeexee lii mu jóge fi déjà weeru ko baa ngi ñëw élèves yi seen njàng mi kenn xamul fu muy mujjee daaw ñëpp gis nañ ne xale yi seen njàng mi xanaa est-ce que ñun dañu génn yeneen réew yi nga xamante ne tey ñoom ñëpp ku fi am mbokk ju nekk si beneen réew bu la mm. waxee moom lu muy dund foofu yow da ngay tiit si sa réew kon ñu war a delloo si suñuy xel mu doon loo am solo defe naa ndey dégg li nga xamante ne président wax na ko dëgg la euh, ci li nga xamante ne mooy ndogali daani wax nañ ko defe naa waruñu foo woon egg waruñu woon xaar sax muy génn naat di wax ndax ba ñu xamee rek ne mbir mi am na rek waroon nañoo mën a confiné wu jël matuwaay yi nga xamante ne mooy mesures yi geste barrières yi nga xamante ne wax na nañ ko def port de masque ah raxasu ak zel yem benn place boo amul lu ñor looy dox nga nga nga nga toog sa kër yooyu yëpp dafay doon yoo xam ne yoo am solo la jigéen ñi nag moom xew yi nag fi mu ne nii takkar naasi na takkar naasi boo xamante ne mais ni tulleeg maale dafa mel ni feebar amul ci dëkk bi te bokk na ci li ko ñi ci seen bopp dañoo war a yeewu waxuma la sax feebar bi dama ko teg mm-hmm. mais àddina fi mu toll nii mm-hmm. moo laajatul yàq fi àddina toll moo laajatul yàq feebar bi doog a ñëw dal suñu kaw kon kenn waru leen a jiitu ci li président di tere ñu bàyyi ko amul ku leen ci war a jiitu mm-hmm. te nag kaama ma wax la liggéey at yàq ci benn fan awa kañ ngay am kañ ngay am loo liggéey bés jot nga dem yàq ko kañ ngay am ah dañoo war a bàyyi li ñu nekke rawatina nag xale yu jigéen yi mariage ni ma gisee ñu koy defee léegi doy na waar mariage niñ ko fonke niñ koy defee léegi doy na waar xale jigéen ñi nañ bàyyi yaay yi nañ wax ak seen i njaboot se invité bi passé awa maa ngi koy nuyu maa ngi ko dégg mu naan dakorul ci njabootu kanaara c'est wax na dëgg parce que buy jur mooy jiitu waroon nangu sa doom jiital la mhm. parce que xale la mhm. xam nga lim bëgg lay def yow mii wuy juram yaa ko war a teg ci yoon mhm. xamal ko ne may sa kilifa feebar am na ci réew mi xew mënul nekk ñu bàyyi xew yi respecté li sant bàyyi li ñu tere man daal woo naa ci jigéen yëpp ak jigéen ñëpp mooy li wax le xew yi dëj كم خيولي دجي تحمل نيا وحنا نكون في بين جون أنا بين مرسين بفتوك نين دجي تيجي ندعي قسم نين ديو جين أنا أدونا في كوفيد بيمو كجاب نيو خنا نيجي سن بير كري نيجي جوجي جين نيو فا توك فا توك فا دجي وارف جري وارف فيروس بيو بوار كتشدك بيجين نك لول بكون تيجي نخمن تاني مغر أنا تلفوني سجل نقال نخمن سيتياسيون أوبليج جدلا mënuñu si dara ndogalu sunu borom la yàlla moo wàccee jàngoro indi ko ci réew mi. teg ko fi ñu war ko nangu la moo tax la moo tax ñu mun ko nangul mënuñu ko ñu nangul ko ñeneen te mënuñu koo nangul waa réew mi man loolu ma jaaxal waaw mu ngi noonu mu nekk loo xamante ne naa leen Sénégal ñun hmm. wax dëgg yàlla ñun dañuy sant yàlla ah hmm. dëgg la hmm. mais am na ci yoo xamante ne dama koy faral di wax ñu may reetaan il nous faut un lavage de cerveau faut ñu raxasal ñu suñuy xel ci ñenn si ñun. ci ñu mm-hmm. ko sañ a wax ci ñenn ñi. Mm-hmm. parce que mënoo gis ci télé bi ni ñu feebar ñuy dee. médecin yi di wax président di daw. Euh, euh, euh, gouvernement bi yëpp sénégalais yi ñenn ñi taxaw jug takk seen ndigg gis na daaw élèves yi jànguñu nga toog comme si rien n'était te feebar bi ak boo waxee ñu ne palu ngi nii palu ak virus bi bokkul. bu ko fa fekkee ba yokk ci dara moo indi ñàkk bakkan bokkul benn yoon mm. pathologie bu mu fekk ci yow maar mm. day taal lay doon mm. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax feebar bi nekk na loo xamante ne mu ngi ci suñu biir te awa lii raam xam nga suñu émission bi passé rek maa ngi fiy wax ba naan ba dugg ci couvre feu bañ naan yàlla nañ ci yàlla mu sal bu ñu waxee couvre feu sama sœur bi naan sa gémmiñ gi moo ñu um ma leen da ngay da ngay da ngay séntu loo xamante ne da ngay gis loo xamante ne da lay leer na yow fii la jëm ay deux cent et quelques cas ay man damay tiit man gis nga bu bu bu bu bu bu bilan bi commencé. Mm-hmm. sama fit ngi tëf tëfi. Ah tellement que xaw ma tey ñaata kaa la ñuy am. Mm-hmm. ñun fu ñu jëm. te mu nekk loo xamante ni mm-hmm. tamit ñii nekk di dee xanaa kenn du dee ñu ne euh, Covid moo ko rey fekk Covid rey ko ñi tëdd ci hôpitaux yi. ñooñu am nañ ay mbokk am na benn artiste bu ma liir léegi si net bi nee na moom bi mu xamante ne dafa bi mu feebaree moom xalaatul woon ci àdduna ne mm-hmm. dina jóg parce que jeune la gis naa ko mais bu fekkante woon ne tey fekk na ci yow jàngoro yu nga xamante ne wala nga am âge benn bi te ñu ngi naan jeunes yi duñ ci dee mais déedéet hmm. am na ñoo xamante ne ay moins de trente cinq ans dañ ciy génn àdduna yooyu tamit ci bàyyi xel bien yi ñu ngi ciy dem ñu ngi ciy génn àdduna ñu naan bu joxe ñu ne mag ñi rek lay rey déedéet hmm. loolu amul parce que mag ñi tamit euh, xale yi tamit am na ay jàngoro yoo xam ne ñu ngi ànd ak moom dëgg la xale day day am jàngoro hmm. xale yi dañuy am jàngoro feebar bi ñëwee fekk leen fa fuñ jëm te xale yi awa dama bëgg a taxawaat ci ñoom tuuti. Mhm. wax dëgg yalla parce que dama gis mama bi kompor mhm. comportement bi ñu yor jaaxal na ma trop. Mhm. parce que fi Sénégal la. te deku l'islam la. te ay julit lañ. tek ci dañ yar njabot gi. dañ yar njabot gi comportement bi ñu yoré non war nañ ko bayyi parce que nak wax dëgg yalla fever bi bu fi nekkutoon du am. du dëgg tek ci tamine tak der yi suñu njabot lañ awa. takk déer yi suñuy doom lañ mhm. samay doom say doom doomu keneen doomu keneen mhm. ay sénégalais lañ mhm. seen liggéey lañuy def seen liggéey lañuy def nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey ñoom ñu respecté liñ leen wax loolu mooy dëgg dëgg de mais takk der yi ah boo ci amul doom man am naa ci doom ah maa ngi ceeg sama ñaari njaboot nañ ci Iba Mbay Jaan Jóob ah ngi leen di nuyu waale xam nga keneen am ci keneen am ci kooku buggoo ñu ñu xaañ sa doom du dëgg kon nañ yaru waajur yi nañ waxtaanaat ak njaboot ji mm-hmm. ñu wone seen bopp mm-hmm. ndax am na comportement booy yor rek day mel ni sa waajur yaru la mm-hmm. te waajur yi nag waslu nañ àq waslu nañ àq ci njaboot gi ñooy génn ci mbedd mi génn beneen jikko nañ xam seen bopp xale yi nañ dem toog waay fii senegal la <laughs> waaw wane yar bi ñu nga des fois xale yi pour ñu yaru mm. il faut que waajur yi ñoom tamit ñu yaru xam nga soo ko waxee dañuy foog ne moo bu rëy nga génne fekk déedéet mhm. xam nga olof Njaay nee na guy dina jur xetax dëgg la loolu mën na ne mhm. wante nag boo juree tey fukki doom benn xetax nga cay am wala doo ko ci mën a am ndax yow tey nañ lay copier moom moo nekk yow dama ci doon bëgg a dolli rek ci mhm. li nga xamante ne euh, ci couvre-feu bi ñi nga xamante ne ñoo gën a mettile ñu ngi toog mooy ñi nga xamante ne liggéey guddi lañ yor di jaay guddi ay lekk yor ay resto yor ay yeneen ak yeneen yoo xamante ne guddi ba guddi la ñuy liggéey mais biñ ko waxee dañu toog métti mm-hmm. na ci ñoom métti mm-hmm. trop mm-hmm. ndax ki nga xamante ne ci lii nga yaakaar pour yor sa njaboot xëy suba joxee si dépense xëy dajale fay weer metti na waaye ñu gëm yàlla ne nee na waa bi may wax ak moom daf ma ne yàlla nattu la bu ñu yàlla teg di xool suñu ngëm fan la toll dama koy nangu su ma amee ñànkatan lekk su ma amee sombi naan mm-hmm. su ko nam yàlla nammee dindi da koy dindi mm-hmm. kon xam nga kooku il est conscient mm-hmm. au moins moom waa léegi xale yi nga xamante ne te li ma ci seetlu mooy gis naa ci xale yoo xamante ne moins de dix huit ans awa mënuma jur sama doom tu même pas dix huit ans ma tëdd ci néeg bi nga génn jàkkaarloo ak police yi di xeex ak saaga ki sànni xeer di lakk ay yëfi jaambur di yàq bien commun yi di taal ay oto jàmbur yoo xam ne ñu ngi droité seen buntu kër seen yoon nekk ci ñu nga tëdd di toj ay vitre di jàmbur au nom de quoi fu ñu jëm te yow yaay ji nga ne yaa jur sa doom yaa ngi tëdd mais foofu tamit ba tey dama fay interpellé waajur yi mhm. suñ la gisee tey bàjjen nga toog làng xëy teg sa mbana ah. làng lépp lu nga xamante ne tere nañ ko def nañ ko comme ay mesure mhm. mu nekk état d'urgence ñu ne lii ngeen war a jëfe mhm. te waajur bi jëfewu ko bu xëyee du takk masque. bu xëyee day toog ci buntu kër gi. moom ak fukki nit ñooy toogandoo. làng seen làng. xew bu am ñu jóg fii boo génnee si banlieue bi da ngay tiit. am na ci quartier yoo xam ne tey boo fa demee danga naan jàngoro bi amul. parce que ñoom ñëpp ñu ngi dankaloo benn place. te jigéen ñi ñoom ñoo koy jiite parce que ñoom ñooy mère de famille. li ma naan la jigéen moom mooy baaxal kër. moom mooy yàq kër comme benn jigéen bu yàqu société yàqu mm-hmm. kon waxuma laa naan kër mm-hmm. kon kër gi kon man lépp lu mu ñu mun ti wax tey dama koy jël tegaat ko ci jigéen ñi mm-hmm. parce que mesure yooyu noonu bu fekkee fekkente ne tegale nañ ko te yow ngay làng di dem tuur di dem natt di dem ci xew yi di dem fu nekk say doom jàkkaarloog yow dina la gis mais bu guddi jotee bu leen police yi waxee dem leen tëddi duñu tëddi mais awa euh, waxoon tëddi mooy fondement Mm-hmm. fii ñu toog nii dafa am fondement mm-hmm. pour ñu mun fi nekk mm-hmm. kon lépp loo gis muy kër di dëkk di ak lu mu ti mel ba ci réew mi jigéen ñi ñooy fondement bi lu ci baax rek suñu loxo ngi ci biir waaye lépp lu fi yàqu ñun am nañ ci part de responsabilité ñu war ci bàyyi xel bu baax dañu am ay nawle yeneen pays voisins yi suñu ay nawle lañu gënuñu ñu dañu am xel am bët am tànk ak loxo ñun dañu am xel mais waruñu ñu gën ñoom fi nga xamante ne yow da ngay da ngay wax ak ki nga xamante ne ma ne la mu ngi si beneen dëkk mu ne yéen da ngeen font mhm. ñun lu ñuy dund fii yàlla rek moo ko xam du ñu génn suñu génnee nee na ku ci génn daal lay leer ne xëy na day dem pharmacie la jëm wala day dem jënd lu mu lekk ñëw na tëjaat na këram mhm. kenn demalantewul kenn dikkalantewul demalante bi la nit ñi war a baax demalante bi ak nuyoo bu metti bi ñëw lëng jëkki-jëkki rek ñëw rek lëngu la daal di la long nangam nangam loxo daa xewi <laughs> non mu ngi am de ba tey dañuy ñëw ne la jàpp loxo ne la loxo daal di la lëng mais comme si man dama yaakaar ne ñun vraiment ñun xaw ma lu ñu bëgg a dal cat mu ñuy bëgg a dugg et pourtant ma ma macha allah ñun amoon nañ départ bu baax ci feebar bi dem ba am ay trois cas deux cas tey ñuy demaat bay compté waat ay deux cent et quelques ay cas tiitaangeel te te awa waxuma la dara mais kaay ma wax na amul nag parent bu ci nangoo dem nag ci yoon mhm. tey jii xale buñ ci jàpp mhm. yaayam nu muy def jaabante mhm. xale bu ci jàpp yóbbu la ci yoon yaayam di jaabante di yéeg ak a wàcc a ah, sonn ku ci gaañ hôpital ngay jaabante di dem ak a ñëw waa léegi loolu yëpp balaa mu la cee fekk doo yar sa doom waxtaan ak moom téye ko bu kenn génn yaa jur bu kenn génn kër gi nañ toog ah mais xam nga da da dafa am yaay yoo xam tam dañ négligé wax dëgg yàlla mais ñun tam awa liñ mën rek mooy ñaan suñu doom yi. Mm-hmm. waaw ñu toog fi rek comme ay yaay lañ ñu waxtaan ak ñoom rek. Mm-hmm. xam naa dinañ ñu dégg. xam nga dafa am yoo xamante ne. dafa mm-hmm. am ci euh, ni ñu koy waxee ci réew. li ñu wax naan que dafa nekk benn problème boo xam ne président wax na ko. Euh, feebar bi feebar la boo xamante ne. du feebaru président. nekkul feebar boo xamante ne c'est personnel. feebar la bu nga xamante ne ku nekk da nga am sa cëggalu guy dëgg la comprendre nga mhm. te sànq bàjjen wax na ko mhm. man mënuma gëm nga jur sa doom mhm. ba pare nga koy neexal ci yenn yi man mënoo maa yaakaar ba pare yab ma di ma yeb absolument mënuma la ëmb juróom-ñeenti weer ñëw bés ba ñëpp xam nañ ko nga bëgg ma jiital di ma teg neneen mënul ne man maa la jur li ma la wax loolu ngay def ah mais nag bu fekkente ne yow waajur bi yow ci sa bopp yaruwoo doo yare te awa doom mënoo ko uuf muy liir ba màgg te defoo ci moom li nga bëgg a def ci moom mhm. non non man ànduma ci loolu xale dañ koy yar ci ba muy ndaw noo mun a màggat mu jox la ci ragal la parce que da koy ko yaroon ci bi muy tuut tànk mhm. mais am na nooy mel moom di ko woon bëgg doom dina la jooyloo de man ba léegi sama yaay dama ko bàyyi xel li may sore âge bi ma ama ak yëpp dama ko bàyyi xel li ma lay xam am na ci loo xamante ne lu ma bëgg def te bañ ci tere te dama bañ ci tere du ko yëg fi mu jaar ak yow waaye nag li nga xamante ne rek xam na ko te mu ne ma lii bu ci dem mm. bu soobee yàlla bu ma ci dem même bu ma ci tegoon loxo sa dinaa ko teg di ko teg parce que ñu am base mm-hmm. te defe naa base boobu la jigéen ñi raté ba tax na lii ñu nekkee ni ñu nekkee xam nga keroog wax naa la ma ne ñun am nañu chance mm. ñun suñuy waajur mm. yar nañu yar yoo xam ne ba tubaarkalla macha allah tey fu ñu taxaw ne mën nañu déglu ñu mm-hmm. suñu ay waajur ñoo ko def c'est des valeurs yoo xam ne dañ ko def si ñun mm-hmm. mais ñun suñu génération ñun suñuy doom dina doy waar trop xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que da ngay jur sa doom yàlla nag boo ne bu mu nekk ak ay ay doomi baay ak yooyu. Mm-hmm. nga jël sa doom bëkk ak ci kaw lu mu def neex na la. lu mu wax neex na la. Mm-hmm. nekk ci kër gi di perturber. kenn du wax bu papa ji waxee nga toj ci kaani nan sama doom nga bañ. déjà xale boobu loolu mu ngi dugg ci noppam. yaa ngi mu ngi raté. éducation à la base éducation xale dañ koy yar. ci bu muy gone. yar ko ci dëgg yar ko ci yoon yar ko ci diine kooku su màggee day xam li nga xamante ne mooy yoon mm-hmm. mais xale boo ko mayul yarul ci dëgg yar ko ci diine mais bu màggee du xam lu yoon mm-hmm. parce que tey su fekkente xale yi nga xamante ne ñooy wàcc si terrain bi di sànni ay xeer di taal ay pono ñii la yaakaar pour ñu yor réew bi ëllëg réew mi ëllëg fu jëm est que ñii ëllëg dinañ doon ay responsable yoo xamante ne war nañ war a mun a téewaat suñu réew mi olof Njaay nee na wax ma sa ndaw tey ma wax ma sa ëllëgu réew waane nag lu mu ci mënti doon mm. tey am nañu ay jeunes yu conscient ay xale yoo am job gi ci réew mi xale yoo xamante ne jàngi wàcc dugg ci seen biir kër ñoo ñu taxuñ ñuy wax mm-hmm. ndax nag yenn saa yi olof Njaay nee na bu ñëpp yemoon mu am ñu gedd seen cër wante nag ak lu mu ci mënti doon bàjjen mm-hmm. xam naa ne waxtu wi mi ngi xaaj na ma ngay dem mm-hmm. il faut ñu xool solution yan la ñu war a def jigéen ñi yàq gi xew yi dajaloo mbootaay yi tuur yi natt yi naka lañ ko mën a déggandekoo ba nga xamante ne mbir mi dina wàññeeku bu dee mbirum natt yi la du ba publicité kenn mais am na foo xam ne mën nga fa jaar di fa yóbbante say natt dëgg la doo déplacé wu kon il faut que ñu yeddaat suñu moroomu jigéen yi mm. ci lii nga xamante ne mooy jàngoro bi mm. ak dajaloogu métti gi nga xamante ne moom la nekkee parce que tey il wax ak moom ndax tey rek ñetti jéeg ci plateau bi <laughs> il rek mm-hmm. mu saf-saf xam nga nag euh, dañ koy wax te di ah. Mm. ku ñu ci mere it ñoo bokk lépp ñoo bokk suñu Sénégal. <laughs> du dëgg ah. bis bu lépp demee ba sotti di nga xam ne. Mm. Euh, dañ doon defar. Mm. yàq taxuñoo jóg. defar rek mooy li nga xamante ne mooñ tax a jóg. képp ku ci gis sa bopp itam ñu ngi sukk di raam di la baalu ak mais du tey ñu wax li nga xamante ne. day jëmale suñu réew ci kanam. parce que suñu Sénégal la ñu am. Mm-hmm. na daan gi saf. Ah. man yaakaar ne su amee benn amande boo xamante ne. Mm-hmm. ku kuñ ci jàpp ñu amaan la am ay daan yoo xamante ne dañ koy def ci yow yóbbu la ci yoon xanaa nag xew jaralu la yenn yi ba mu tax police ah, ah, ah, takk der yi ñëw gàddu la say biir naw nawle di la yóbbu parce que da nga doon xew mais xew ba ci lan mais il faut mu mu parce que wax nañu rajo yi wax nañ tele yi wax nañ bi yaa maire mbootaay sensibiliser lu ne def nañ ko rajo yi foo tourné ñu ngi wax mais nit ñi nanguwuñu ku ci mel nii man rek ak ak Awa Fall rek yenu àdduna bi rek yaakaar ne yow la ah fas yéene langue bu mais boo feebar amul yaa moom sa bopp dafa lu la neex mhm. mais nag situation oblige nga respecté ndax da ngay sàmmaale ñi nekk si sa ginnaaw sàmmaale ñi nga xamante ne xëy na di nga gis koo xamante dina ñëw sa xew gàddu ko fa yóbbu ko si ki nga xamante ne bougéwul maître mi ngi toogoon loorul jàmbur mhm. bi nga xamante ne innocent la boo xamante ne moom demul dikkul il faut ñu delloo si xel yi na daani saf. na daani saf il faut ñu waxaat ak jigéen li awa wax rek mooy mooy question bi ma ko posé rek. dëgg la jigéen ñi il ñu delloo si waat leen. Mhm. wax leen. Mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci li nga xamante ne naka sudul noonu. Mhm. mu leen di jara ba ñuy nëbbatu di ko def. du yoon awa. te li siini wax rek laay dëggal. na daan yi métti. na daan yi métti. parce que nag bu ñu leen tegee daan yu métti dinañ ko bàyyi. ndax ku déggul nag li olof di wax kàddu nga dégg yar. comme du ñu dégg ndax ñun maa ñoo ngi ko njëkk ci suñu biir ñun ndax ñun ñëpp ay jigéen lañ mhm. mais dafa am lu am ci réew mi comme dafa am lu am ci mhm. nañ teg lépp ci suuf jéem a waxtaan ndaw ñi mhm. jéem a toog déggal président lim ñu sant loolu mooy dëgg bu daan yi méttee dinañ ko bàyyi man daal na daan yi tar rek ndax duñ dégg waaw ah. loo ciy doon waat nii nii nii euh, benn sœur mhm. doomam moo doon wàccee jabar mhm. falaa jóge nii ñëw xam nga nu mu def mhm. xale bi dix neuf la ko ñaari nit dugal ci oto ñëw indil ñu ci suñu biir kër goro bi daal di dugal néegam jeex na ekkati lu mu koy may ak ay takkaayam jox ko ne ko lii la yàlla dogal jeex na jeex bari teg ko ci loxo goro bi neexul et xewul ñaar ñett nekkuñu fa ñun waa kër gi kese ñoo fa nekkul 19 heures ñaari nit ñoo dugg ci oto indi seet bi parce que lii la tombel mhm. situation oblige on n'y peut rien nañ ko nangu ñu accepté que ni lii moo xew ci réew mi mhm. nañ ko nangu te bàyyi li nga xamante ne mooy yàq gi mhm. ak li nga xamante ne mooy dajaloo bi surtout dajaloo bi nëbbatu bi ak dajaloo bi surtout dëj am xamoo dëj bi lu mu doon diw d'accord dem jaale ji baax na mais su fekkente situation bi lañ toll wóotal nga jaale xam nga parce que loolu la yàlla dogal mm, aussi mm, mais nag euh, yar bi nga xamante ne ñu ngi koy wax ba tey yar gi des mm. parce que ki nga xamante ne éduqué nañ la nga tegu ci yoon di nga jomm def lu bari awa dangay ngay rus def lu bari yow mi magum jëmm sax yow mi magum jëmm da ngay jomm man nee naa la jomm naa lii rus naa lii gis nga tànk yaa ngi koy wax mm. jomm naa lii rus mm. naa lii mm. sa doom dina jommu lii rus lii ngir sa jëmm kon nañu jomb yenn yi parce que dem taxawaal ba indi dem dox excusez-moi ci terme bi <laughs> dem dox bay dem indi sa sa sa jàngoro <laughs> indi ko ci gox bi <laughs> vraiment indi ko ci benn kër wax dëgg yàlla rafetul mm. te nit ñi wax nañ yooxu nañ bay bëgg fu mu ne ni gaddu suñuy loxo yooxu rek ñu des xam na soxna Awa ah li nga wax rek bàjjen ne gàddu suñu loxo yi rek yuuxu moo ñu dese ci des waaw lu ci desati Awa mm-hmm. parce que jàngoro bi ni muy lawe ëpp na mm-hmm. li jaral président jóg comme ni ma ko waxee sànq mm-hmm. maire yi nañ jóg maire yëpp nañ jóg man nag sama maire daa jóg. Mhm. waaw monsieur le maire Moussa Sy maireu parcelle. Mhm. waaw moom dafa jóg moom macha allah dëkk bi set na mi ngi mobiliser nit ñi mi ngi ci école yi mi ngi def lépp lu ko war. wax mhm. dëgg yàlla ma koy nuyu nag. waaw ndaanaan boobu parce que président na leen sax ci li nga xamante ne mooy. maire yi nañ jóg non maire yi nañ jóg. nañ def ni maireu parcelle Moussa Sy de wax dëgg yàlla parcelle macha allah. heure bu xëyee mi ngi ci école yi. heure bu xëyee mi ngi ci marché yi mhm. wallahi lazim mhm. yàlla rek laa wax te ñëpp ngi may seetaan mhm. mi ngi def liggéeyam macha allah ànd ak suñu madame le maire moom tuuti mbay waaw kon ñun noonu lañ war a def su ko maire yi defee chef de quartier yi jóg def ko ñun parents yi waajur yi ñu def ko ah feebar bi léegi mu abal ñu kon nañ góorgóorlu bu baax président interpellé na maire yi ku nekk sa commune am na ci loo xamante ne nguur mënu ci jote takk der yi mënuñoo jote fépp ndaxte policier bu nekk mën da taxaw ci benn buntu kër ne du ngeen fi def lii kon ki nga xamante moom moo yor commune am mm. wax na ko sànq chef de quartier bi nekk fa ah. bàjjenu gox yi nekk ci biir foofu ñu ñëpp ah. dañ leen fay interpellé mu nuyu waale bàjjen <laughs> sama bàjjen Ndeye Fatou Diallo ah. ko bu baax sargalaale ko ñu ci ngeen ci def na liggéey bu am solo mais ba tey ci commune yi bàjjen war nañu mobiliser wu maire bi chef de quartier bi lii nga xamante ne wax nañ ko muy jàngoro ji a xew yi nga xamante ne mi ngi ci biir quartier yi di fa am mm-hmm. waruñu koo nas nasal mm-hmm. bu ko chef de quartier bi gisee mm-hmm. wala bàjjenu gox gis ko war na ko dem signaler ji ki nga xamante ne foofu lañ ko war a dem yóbbu absolument mais xam nga awa dañoo bëgg maslaxa ñun senegal dañoo bëgg maslaxa maslaxa ba moo ñu indil bépp coono ci réew mi parce que sa sa dëkkandoo laa damay maslaxa rus naa wax awa lii wala مصلحة دال منكو بايرك بند بسلا بند بس بوم موي إندي لورانج. كنت أنا كوميني ميري كوميني كبريزان وخي سنترلا سنترلا. مي جنس بي بيغا خمانتيني ньо نيك دان لي ريجيون ان توكا ا كولدا مانغلين دي نويو دو باساج ньо نيك جنس كولدواز مانغلين دي نويو لي زانفان ньо نيك خالي يو ام جوم ما شاء الله خالي يو خمانتيني فريمان دانيو داجالي جيل سن كيس داجالي سن خاص جند اي ماسك dem yóbbu ko ci école yi ñëw ci koñ bi dugg ci kër par kër di distribuer mu nekk lu rafet bu nawet jotee ñu jënd ay moustiquaire wut ay moustiquaire dugg dugal ci kër yi hmm. des jeunes yoo xamante ne responsable hmm. macha allah uh-huh. donc jeunes yi na nañu takku dugg ci koñ yi parce que xam ne comme ni ñu koy waxal mag ñi seen wàllu dem naa waaw hmm, gis nga euh, awa soo xamul lu la war uh-huh. man ma xam li ma war rek dama koy def du ma la ci xaar dëgg la du ma la ci xaar donte lépp lu ñuy def nañu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ñoom la fa euh, euh, ñoom la fa yàlla teg mm. dem waxtaan ak ñoom mm. bu ñu àndee ak ñoom alhamdulilahi rabil alamin mm. bu ñu àndul ak ñoom buñ leen xaar parce que dëkk bi suñu dëkk la ëllëg ñee dañuy pare ñun ñoo fiy des ah. ñoom ndaw ñi nañu jóg ñu mobiliser wu jàppoo daal di defar seen dëkk hmm. sensibiliser hmm. nit ñi hmm. regroupement yi nga xamante ne nit ñaa ngi koy def ñu fexe ba nit ñi bàyyi ko parce que am na nooy waxee ak nit bu dee nopp buy dégg la parce que nee naa la sànq taximan bi dama wax ba ci biir wax ma xam ne mu ngi tàngal may wàccee mais di ko xam nga réanimatrice di ko hmm. sensibiliser waale mu ne kon ma xëcc ma nag ko xëcc ma xëcc jàmm ne mu jeex kon am na nu ñuy waxtaanee ak nit ñi ci ci suuf euh, ci jeunes yi hmm. dinañ dinañ mën a am li nga xamante ne xëy na moom lañ bëgg hmm. waaye fu mu ne nii awa réew mi jax na de tiit nga wax dëgg yàlla <laughs> jax na trop awa comme ni siini waxee pourtant xale yi bi feebar bi doog a ñëw mais dañ taxaw ñoom dañ mobiliser woon taxawaay bu njëkk ba taxawaay bu rafet lañ taxawoon ASC yi ñu ngi félicité waale bu baax a baax sargal leen non ñëpp jóg yàlla xam na ko ñëpp a taxawoon di joxe masque yi di mobiliser xale yi di waxtaan ak ñoom non dañ taxawoon mais deuxième vague bi dañ bàyyi te deuxième vague bee gën a tàng. te bii moo gën a tàng dafa bari. ñoom tam nañ ñu yërëm ñun parents yi tamit nañ xam ne feebar bi comme ci mag la aay. xanaa bëgg nañ ñuy gis nag. du <laughs> dëgg waaw nañ jàpp nañ jàppe woon rek. daal di xam ne feebar bi am na wax dëgg yàlla. ñu taxaw taxawaay bi ñu amoon. buñ ko taxawaatee bii yàlla xam na ne mu abal yàlla na ci yàlla dugal loxoom. dëgg yàlla ndax nag feebar bi nag yéeg nañu nag di awa. Eh, boo seetloo que bu njëkk ba. ñu sensibiliser. wax na ko léegi ci biir waxam. gisoon ne dafa wàññeeku bien sûr bu njëkk ba nee naa la fii keroog suñu émission bu mujj mhm. ma ne la bu ñu takk sénégalais yëpp àndandoo mhm. ñëpp àndandoo woon mhm. opposant yi nga xamante ne sax bokkuñu woon ak président ñëpp fa àndandoo woon daal di xeex affaire bi ba ñu ñuy waaja ne naka lañu ñu bàyyi loxo affaire yi daal di jog bi mu jogee nag nit ñi ne Sénégal ubbeeku na feebar corona ñëw commencé awa est-ce que gisoo ne internet beeg wax yi amul am na audio yi vidéo yi lu ne nga dégg ko est-ce que loolu tam liggéeyu ci bu baax liggéey na ci parce que loolu waxoon nañ ci defe naa ne lool tamit nguur dina ci jël li nga xam ne mooy matuwaayam parce que site internet yi tamit bokk ah. nañ ci li nga xamante ne ñooy yàq réew mi vraiment ndaxte toujours duñu joxe information bi nga xamante ne mooy réel waaw les ah. bonnes informations duñ ko joxe duñ ko duñ ko gëm lu ñu ñëw duñ ko gëm ñooy yàq xelu nit ñi ñi mel ni man nag bëgg internet ba bëggatee duñ ci génn suba ba jant so bu ko defee ñu ngi jabbaa yi di partager waaw mm-hmm. ngay lire audio yi vidéo li ñuy wax dara amu ci gis nga ñàkk yi liñ ciy waxaat mm-hmm. léegi mm-hmm. ah? la ñuy daanelee nag ah, mi ngi macha allah ah. naa ne gis nga li nga xamante ne mooy biti réew li fay dee ci ay nit ñun 400 yi ñu wax am na dëkk yu koy deele par jour ma xam ci wala lu ko ëpp ma xam po du dëgg waaw nag bu fekkente ne dem nañu ba nga xamante ne tey ñu ngi trouvé lu nga xamante ne ay vaccin la. Mhm. ñu ne dañ koy indi. gis nga li nga xamante ne mooy vaccin polio bi ñu ko fi indee woon pour xale yi. waaw toqal bi. waaw amoon nañ fi problème lu ñu wax dañuy bañ xale yi am doom ëllëg. dañu bàyyi gis nga nañu am benn esprit de dépassement bi yéen ñi sénégalais yi nañu ko bàyyi gis nga nguur bu fekkee dafa am benn intention bu mu bëgg def. Mm. mun na ko jaare feneen fu dul ci ay vaccin. dëgg dëgg naa président Macky mi nga xamante ne juddoo ci réew mi. Hmm? màggee ci réew mi jàngee ci réew mi hmm. tekkee ci réew mi hmm. gouverner ci sunu réew mi ak poste de responsabilité yi mu amoon yëpp ci li nga xamante ne moom mooy bi Abdoulaye Wade nekkee ci pouvoir bi hmm. defe naa ne nee nañ moom moo nekk président bi nga xamante ne moo toog ci poste yu baree bari ba pare nekk président de la république moom rek lañ ko fi gisagum kon kooku bëgg réewam moom dina dem di jël benn engagement boo xam ne ah. complot ak li xamante ne moom mooy waa bitim réew pour am lu muy def ay doomam ngir yàlla dañ leen koo ñaan dañ leen koo ñaan am na ci yoo xamante ne bu fekkee yow bëggoo ko pour yàq bàjjen loolu tamit il faut ñu wax si. gis nga awa chimio prévention bi vaccin yi excès am na ko def vidéo. waaw non man kooku kooku dafa yaakaar dañ ko gisul. gis nga chimio prévention bi bu mu amee. vaccin yooyu noonu. pour palu bi. ñun Kolda xam nga palu bi lu muy ravagé dafa bare. dafa bare loolu entre parenthèse rek laa ci dugal. nit ñi naan noonu li pour wàññi. xaw ma xale yi ñu bañ a jur. <laughs> nangam nangam nangam. mais xoolal ñu wàcc sur le terrain sensibiliser di nuyu bàjjenu gox yi ñu wàcc liggéey ci sama yaay maman Awa Kande mu liggéey ci mais gis nga at boobu docteur Mangane dafa dafa kontaan kontaan boo xamante ni tellement que taux bi dafa wàcc mais mujj gi chaque année euh, éléments yi dem euh, ci kër yi pour mm. va pour jox xale yi seen seen garab yi mm. amatuñu problème mm-hmm. dañuy dem ñu accueillir lañu jox donc vaccin bi nga xamante ne ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy wax président wax na ci ñoom professeur mm. Seydi wax nañ ci ak ñoom professeur ban intérêt la nguur gi di am mooma jaaxal dem jëli loo xam ne day day day rey sénégalais yi bu ñu reyee sénégalais yi ku fi des ñoom kese ak garab yi ak tabax yi ñun dañu bariwul léegi ñu reyee ñun kon xanaa ku fi des bu ñoree mu dund dafa am yoo xam ne gis nga bu wax dofee déggin gi dafa war a wér mm. ñun pëli dañuy wax si xaala ñaw yi nanir ka sellat <laughs> comprendre nga looy wax askan bi ci loolu loolu dama ne euh, wax ji bu dofee déggin gi nopp yi koy dégg da nga war a dafa war a wér mm. ndax mënuñu comprendre président nekk un sénégalais gouvernement bi dëkk fii ñu am fi ay parents mënuñu comprendre ñu jékki-jékki naan dañ fiy indi loo xamante ne daf ñuy rey mm. ngir yàlla ni ko aw waxe ñu ngi sukk di raam mhm. nañu vacciné wu bu vaccin bi ñëwee xamuñu lu mu jar xamuñu lu mu lu ñu def ba am ci parce que euh, ak lu ci munti am fexe nañu reyante nañu ba am indil nañu ci mhm. nañ ci faji ngir yàlla ak yonent bi ñu am jàmm Sénégal am jàmm vaccin wax dëgg yàlla awa ñu ñàkku ji maa ngi dégg benn mag mu may nettali euh, jamonoy peste ba mhm. su bi ñu indee ñàkk yi nit ñi jóg dem ci sëñ Fallou mhm. di kalaame mhm. sëñ Fallou jóg sañse ba rafet mhm. dem ñàkku ji réew mi yëpp jóg ñàkku ji feebar bi abal ñu ah kon ñàkk yàgg na ñëw ci réew mi feebar bu fi mos a am indi nañ ñàkk mbas yàgg na ñëw déggoo ma ne la peste ba atum peste ma fekk juddu dañoo xaaju sax ma ne la benn ko nettali nee na sëñ Fallou nit ñi dem di ko kalaame mu jóg dem ñàkku ji ñëpp jóg ñàkku ji kon xam nga ne ñàkk yàgg na fi ñëw te suñu doom yaa ngi nii buñ juddoo mhm. dañ leen di ñàkk ba ñu ëpp at man ma jaaxal bu fekkee dañ ñoo bëgg a dañ leen di ñàkk si ñàkk yi nga xale yi lañ koy jaarale dañ leen di ñàkk ba ñu romb at benn mhm. président fii la dëkk ci réew mi doomu Sénégal la waaye nan lay jiite réewam mii di ñu ñàkk pour ñu wàññi moom mu ñàkk ay njabootam ñàkk bi ñàkk ñu ñu ñu ne ñu def ñu bëgg ak bëgg réew mi ak bëgg réew mi ah loolu mënul nekk nañ ko gëm mhm. te gëm yàlla nañ gëm yàlla nag mm-hmm. gis nga yàlla mm-hmm. bindul kenn ci at rey la ci ñaari weer mm-hmm. wala ñetti weer amul nañ gëm suñu borom su ñàkk yi ñëwee nañ dem ñàkku ji ak njaboot gi jiital leen ñàkku ji te gëm yàlla te xam ne yàlla moo fi nekk wax dëgg yàlla man daal maa ngi mobiliser parents yeeg ñëpp ñàkk yi excès nañ dem ñàkku ji te gëm yàlla. Mhm. surtout te gëm yàlla. gëm yàlla te wóolu président. Mhm. xam ne réewam mii non du fi def loo xamante ne wax dëgg yàlla. kenn du jiital nit ba pare sax di ko fakkatal di ko fakkatal. kenn du jiital nit ba pare dem ah. di ko teng tengal. mënutee kenn du jiital leen man même bu dul dara nee naa leen yërëm naa président. bilaay mais Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le ministre. bilaay xoolal ko conférence de presse ak yeneen ministères yi nga xamante ne. ñëpp mun naa sax ministère yëpp sax la affaire bi concerné. kenn toogul ñëpp kenn toogul. kenn toogul nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg. xam nga tey bugguma ci delluwaat ndax keroog am na lu ma waxoon aada ñag damaa dagg. te mm-hmm. sama doom bugguma lu ko naqari. moo tax du ma ko waxaat. Mm-hmm. mais gis nga man bu deewoon ba toll foofu. adama su ma doon gouverner noonu laa koy doxalee de mais comme buggoo ma wax ko rek du ma ko wax ci télé bi <laughs> dama koy daal di off <laughs> mais gis nga li nga xamante ne moom mooy vaccin bi mm-hmm. vidéo yi commencé na di génn commencé nañ di yàq xelu nit ñi mm-hmm. naan dañoo commencé bëgg a wàññi ñii dañoo bëgg a commencé wàññi na mm-hmm. ay bàjjanu gox ngeen ñëpp ñu ngi liggéey ci li nga xamante ne moom mooy média bi nekk ay animatrice nekk ay présentatrice di liggéey ci rajo yi di liggéey ci télé yi ñii nekk ci association yi kon nañu fexe ñu daal di gën a mobiliser waat takk comme ci première vague bi niñ doon waxee nit ñi ne nañu takk masque yi euh, nañu jóg jafandu nañu waxaatee noonu nit ñi que ne vaccin bu ñëwee ku ci nekk na nga dem continué wu ji ak sa njaboot ndax alal ju bari la ci nguur def pour que doomi réewam yi daal di wér mhm. bàjjal su ko defee sax awa mhm. dañuy am jàmm réew mi ñëpp dellu si seen i activité mhm. ndax lii xew ci réew mi neexul kenn dëgg la tey ku sañoon président bu sañoon Sénégal gi mooy nekk ci kaw réew yëpp ci koom-koom ak lépp wér gu yaram ak yëpp mais tey kan moo bëgg a jiite foo xamante ne ay ay problème kese la mm-hmm. kan moo bëgg a jiite réew boo xamante ne dafa am jàngoro mm-hmm. kan moo bëgg jiite réew boo xamante ne euh, nit ñi amuñu euh, euh, mënuñu liggéey mm-hmm. mais feebar moo ñëw dëgg la fexe nañ parce que boobu ba tey ñu ngi doon wax ne waa état ban solution lañu indi ban solution tey solution ñëw na alhamdulilah alhamdulilah vaccin yi ñëw na nañ ñàkku ñun ñëpp yàlla defal ñu jàmm. ñu am jàmm ñu dellu si suñuy liggéey. ah ñu am suñuy weccet ñu yor suñuy njaboot ñu sañse ci tàggoo waale ñu ngi naan waxtu bi jeex na ma doog a jox ndey xanaa di leen remercier war rek ah. <laughs> di remercier équipe technique euh, di kontaan ci ñoom bu mm. baax a baax di mm. remercier euh, Ndey Bangoura Ndey Bangoura bu baax a baax mm. di nuyu remercier ñëpp képp koo xam ne mu ñu bàyyi xel rek di leen joxaat dig daje si yeneen du ñu sonn du ñu tàyyi dinañ sukk dinañu raam pour que vraiment mbas mi génn ci réew mi ngeen mun a vacciner daal di respecter lépp loo xamante ne mesure barrière mesure barrière macha allah macha allah def naa tàkkusaan sa kër la waaw gis nga kon saa yu la neexee rek jeex na daal di dugg <laughs> nday ñu am mbégte waaw la si li nga xamante ne moom mooy plateau tàkkusaan dëgg la ma bàyyi la nga daal di eh, tëj tàggoo daal di nga may ma tam ma nuyu rek association yi waaw waaw tàggool waaw mm-hmm. mi ngi noonu mm-hmm. maa ngi nuyu wax dëgg yàlla waa club gym plage mm-hmm. ñun ñooy sport si plage bi plage u bi ñu ngi foofu ànd suñu yaay naa ko jox taan bu Laye rek mu jox ñëpp ak coach Sibori Diop ah mais damay ñëw nag ànd def wax dëgg yàlla ma nekk fa présidente commission de femmes ah di nuyu présidente bi Adja Sow Layla di nuyu suñ càmmeñ yëpp mais nag damay nuyu waa Sira ah, madame le maire Tuuti Mbay moo fa nekk eh, takku liggéey boobu tam gis nga suñu présidente Marème fay la tudd macha allah mais damay ñëw nag ci waa mi fa ñëw ñooñu xam nga ku nekk ak mbokkam macha allah waa mm-hmm. MIFA maa ngi leen di nuyu am mm-hmm. nañ fa suñu mag soxna Guignane Diouf mm-hmm. maa ngi koy nuyu kilifa gu góor gi Samb Fay la waaw nuyoo xel yëpp mi ngi ci sama doom Pape Yoru Diop maa ngi koy nuyu mooy ki ma doon waxtaan ak yow incha allah <laughs> dinañ ko fi invité incha allah mais di nuyu wa Ndar nag sama dëkk fa laay sey wax dëgg yalla dama koy jox kilifa ga rek bay mu nuyu ñëpp di nuyu wa parcel nuyu wa faja fi mu joggé ah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la gërëm awa ku baax nga wax dëgg yalla ku baax nga yalla na fay la di ñaanal télé bi RTS sha allah jëm ci kanam rek amin ya rabbi ñu dégg ko fep di nga fi ñëwaat sax ci ñuy ñaan yalla mbass mi wañéku so ñëwé ci li nga xamantene moy association yi nga xamantene jité nga ko amna ci yo xamantene ay coordinatrice yeen nga nekk ci présentatrice nekk ci présidente mhm. dinañ ci gën a wax mu gën a amélioré gën a am yoon ndax koom-koomu réew mi ñun moo ñu ñor Sénégal jëm ci kanam loolu moo ñu ñor kon di nga dellu si waat waxaatal nit ñi ci mbirum association yi ñu xool naka lay développé ak naka lay jigéen ñi di doxalee liggéey rek liggéey góorgóorlu bu baax ñeme nañu xew nag yàqal mën nañ ko waaye ñeme nañoo liggéey tamit doon nañ ñoo xamante ne ñu am jom la damay nuyu nag waa ANC waaw damay nuyu waa ANC ñu am baax waaw ñu am ah, jom lool allah Coro Samb sama waktu jeex na nga ne kon nak machallah allah ngi di gërëm bu baax a di len sargal ah. madame Traoré machallah allah mm. euh, liggéey bi rafet na gërëm Aada tamit machallah sama dom jooju ken du mom japp na ci ba mu nice ñom badian ah ah mm. euh, Binta sama dom ju jigéen jooju nikol tamit ak ñom Nicole ñom ñoo nek fofu non ci régie mm. gërëm Pierre euh, Jean Pierre ak Kassé ñom ñoo nekkon fi ci caméra bi ñooñu tamit sama dom la ñu gërëmaat invité yi la di len gërëmaat téléspectateur yi te di len ñaan di len wax naan bu vaccin bi dem leen ngeen ñàkku ci ñàkk pistolet bi bi ñu nekkee xale gisoon nañ ne ñu ngi ko feroon def ndax bañ jàngoro ji dem leen ngeen ñàkku ji bu ngeen ñàkkoo mbas mi génn ci réew mi bu ko defee ku nekk daal di dem président am jàmm réew mi am jàmm wasalaam ñu jox leen dig daje ba suba incha